d'accord daam léegi maintenant pour euh, lutter contre euh, li nga xamante ne chaque jour ñu dégg ko muy gangréner le cursus scolaire des jeunes mooy non respect des accords signés grève non respect des accords signés grève soo ci tontoo ma kii ñëw après nag maa Khady je vais te donner dix minutes fàtte naa ne boobu ba léegi yaa ngi ŋànk sa question ma ciy jéggalu bu baax a baax waaw léegi euh, loolu dama ci tontu rapidement j'ai dit au président au au j'ai dit au président Diomaye ah sa gouvernance pour notre secteur li ëpp solo mooy bala ngaa mun a def les réformes structurelles il faut nga régler les questions conjoncturelles xamul tax jàngalekat yi doon jonkan am seen i revendication soo yii na fii wax ni yëpp te ma koy wax ni maam Biram bi wax sur les contenus boo fi nekkee di ko def te jàngalekat yi am seen i jafe-jafe yoo xam ñu ngi koy dund soo bëggee di ko def jàngalekat yi mën nañ la empêcher nga dem parce que syndicat dañuy taxaw ne ñun loolu du suñu priorité bala ngaa wax réforme continue bala ngaa wax réforme du pilotage bala ngaa wax réforme planification ceci cela bala ngaa wax abri provisoire waa ñun ñun ñiy jàngal xale yi on a des problèmes yoo xam mën ta xaar te ils ont raison parce que dafa am ay question yoo xam boo ko réglé te mun naa ko tënk aujourd'hui question yi nga am mooy xaar le président Bassirou Diomaye Faye dans le secteur de l'éducation de la formation benn mooy dafa am problème de statut yoo xam ne enseignants yi mënatuñu xaar yaa ngeen a ñu koy wax ci seen Euh, seen plateau yi ak euh, vraiment ngeen seen reporter di ko wax ci seen euh, journal ngeen gis ni jàngalekat yi tout le temps suñuy grève dañuy wax sur la question des décisionnaires yi ngeen di dégg. Mm. décisionnaire boobu point la boo xam c'est un point douloureux diis na bëri na problème mais c'est une injustice à corriger enseignants yi di ko xaar depuis plus de vingt cinq ans nga xam ne régime libéral bi ko waroon a régler mi ngi dem. mais lajj bi mu gën a lajj mooy sur la des décisionnaires nga xam décisionnaire koo xam ne situation ñaari type rek moo ci am te ñoom ñaar ñëpp ñoo yem dañ leen a tooñ ab loi bu fi nekk boom dañ naan boo rombee borne bi mooy 35 ans bu ñu la recruter après 35 ans tu es un décisionnaire parce que duñ la yóbbu dans la dans dans dans le national de retraite lay bàyyi au niveau de l'IPRES alors que kooku tegul fenn parce que loi boobu c'est une loi caduque beneen bi mooy ñi nga xam ñoom bi ñuy dugg ci enseignement ils étaient jeunes ay xale lañu woon ay 26 ans 28 ans 27 ans ñu imposer leen. ñuy xaar ay ay commission yu leen war a seet seeg ay procédure administrative ak ay actes yu war a génn ba seen acte d' intégration bi muy génn ñu romb 35 ans ñoom amuñ ci benn responsabilité de c' est des lenteurs bi ñuy dugg ils avaient moins de 35 ans mais parce que am nañ lenteurs administratives yu tax ñu ëppal 35 ans ñu leen non c' est vrai que c' pas votre faute mais on vous considère comme des décisionnaires kooku mooy a des incidences à la le dernier salaire son dernier salaire su fekkee cinq cent mille la mooy dernier salaire am su fekkente ne dem na retraite en tant que décisionnaire il peut se retrouver avec quatre vingt mille ah il peut se retrouver avec quatre vingt mille ou soixante dix mille am na ci sax ñoo xam ne ils peuvent se retrouver avec quarante cinq mille de ah salaire alors qu'ils étaient à aux environs de de salaire comme dernier salaire pour les instituteurs les professeurs la même chose j'ai donné l'exemple d'un proviseur boo xam dafa avec un salaire proviseur bi avec l'ensemble de ses indemnités et tout huit cent mille xam nga qu'est-ce qu'il a eu euh, euh, à la retraite comme salaire cent vingt muy dundee la njabootam hmm. donc loolu c'est une question moom si le président Bassirou Diomaye Faye mënul bañ a toog ñu waxtaane ko loolu moom c'est un euh, problème très sérieux boo xam ne ci njàng mi il faut rek mooy problème bi ci gën a dund la moo tax ma yàq ci sama temps nii yëpp maintenant yéen d'autres questions sont liées également au comme les MEPS mooy ay professeurs d'éducation physique yoo xam ne dañ leen a bëgg a considérer comme des instituteurs alors qu'ils enseignent dans le moyen secondaire c'est la même chose avec les METP c'est la même chose avec les chargés de cours yi nga xam ñi ngi jàngale ci école yi c'est des instituteurs yoo xam dañ leen am ay diplômes académiques yu tax ñu mën a jàngale dans les CEM et les lycées ñu yóbbu leen fa ba noppi nangu ñu régulariser seen situation pour les reclasser comme professeurs les chargés de cours c'est la même chose ak ñi nga xam ñi nga xaar seen mise en position de stage les professeurs contractuels endurcis aujourd'hui il y a des enseignants qui ont fait vingt ans dans le système ba léegi kenn dugalagu leen dans le système donc loolu mooy tout ce qui a trait au statut euh, à la carrière mooy les lenteurs administratives aujourd'hui des anciens attendent leurs arrêtés ou leurs actes des années ba ñu ci bëri sax loolu moo tax ñu nekk ay décisionnaires d'accord aujourd'hui les actes d'avancement les actes d'intégration les actes de validation donc et les actes de reclassement ñoo ñëpp ñu ngi xaar seen i acte aujourd'hui c'est des milliers d'enseignants loolu le président Bassirou Diomaye Faye pour mu pour loolu nag am na solution am na solution moom naa ci dalal xelu yaa ngi wax droit wu enseignant yi rek mais nongo yi ñuy jàngal tamit am na nañu sañ-sañu wax ban genre enseignant la ñu soxla dañu gis ne niñ leen di tëmbalee également façon bu nekk lañ leen da ngay gis enseignant bu taxaw boo xam ne élève mën na koo corriger waaw léegi loolu dama ciy ñëw waaw aywa da nga bëgg waaw merci beaucoup Euh, ci la bëggoon ñëw mooy euh, la qualité de l'enseignement hmm. parce que tamit ci problème yi ngeen wax am na leneen mooy lu aju ci volume horaire volume horaire d'enseignement yi nga xam ne nii mhm. duñ koy atteindre mhm. loolu problème la année académique yi nga xam ne nii day day chevauché day euh, chevauché waaw kay voilà euh, yooyu beneen problème la beneen i tamit mooy li jëm ci wàllug euh, développement wu école ak institut privé yi nga xam ne souvent day échappé ci contrôle état waaw loolu question bu rëy la mooy le le le respect du quantum horaire mhm. parce que pour ñu ni seetaan mooy li mu waxtu bi nga xam ni moom la xale bi war a jàng ci at mi pour ñu war a wax ni at mii at mu baax la Sénégal norme yi nga xam moom la wax ci àdduna bi nga xam ni bi ci gën a siiw nga xam ni moom la UNESCO wax mooy junni waxtu yu teg ñaari téeméer ci at mi mhm. Sénégal du ko jege Sénégal pour mu def juróom-ñaar téeméeri waxtu yu mat ñu jàngale ko ci at mi daf ñoo të loolu bokk na ci défi yi nga xam ne moom la président Bassirou Diomaye fay aussi war a régler te loolu jàpp naa ne li tax mu gën a réglé wu mooy fexe ba pacifier l' espace scolaire parce que comme ni nga ko wax bala nga ne naam ne fa bala ñoo wax réforme structurelle yi mhm. mooy yi ñu doon wax sànq pour soppi njàng mi te ma ci yëpp bëgg naa ci dugg sax tuuti dolli ci réforme yi ñuy xaar mooy d' abord nga fexe ba dal am dal am mooy jafe-jafe yi jàngalekat yi dund nga xam ne da ngay am ay problème animateur polyvalent ñu nekk ci système bi am na fi sax ay jàngalekat yoo xam ne dans certaines région mhm. euh, mën naa jël l'exemple de euh, des des des des enseignants des écoles communautaires mhm. ñu may déglu bés bu nekk dañ may woo ne ma dàmbuj kañ mën leen xaar leen président Bassirou Diomaye Faye teg gouvernement <laughs> parce que ñoom it ñu ngi jonkan di xaar ñu nekk ay enseignants am dañu leen mettre dans la précarité aujourd'hui dañoo am ay euh, ay ay jàngalekat yoo xam ne ay maîtres coraniques lañ yoo xam ne seen formation sax euh, bu ñu leen bëggee tàggat wala bu ñu bëggee inspecté leen du ñu xam ci lan leen inspecté parce que dara leerul ci seen profil de formation donc euh, enseignants arabes yi dans les FA di kaas ñoom it parce que njàngaleem araab mi dañ koo ñàkkal fayda jox ay waxtu yu néew yoo xam ni day tax xale yi duñ ko jox importance ba noppi amuñu ay euh, contenu yu nu stabiliser ñëpp di ko jàngaleendoo ak ay manuels yoo xam ñëpp a ciy jàng di mën a nafar yooyu yëpp c'est des problèmes yu mag yoo xam ñi nga xaar mais aujourd'hui man jàpp naa ne li ngay poser euh, comme question muy quantum horaire bi ni ñuy def ba atteindre ko li ñuy war a njëkk a def ñoom mooy euh, aujourd'hui le le président Diomaye mooy mu mettre en place ce qu'on appelle euh, vraiment une réforme d'abord de euh, euh, euh, euh, un règlement de tous les conflits sociaux yi nga xam si moom mu ëpp solo pour que ñu mun a jàll ci li ëpp importance mooy dem nag sur la sur les réformes de notre système d'enseignement kon bis bu ñu réformer ba jàngalekat yi li ñu déggook ñoom ci accords yi ma fi wax nii yëpp presque ay accords la à part peut-être benn u ñaari point maintenant yii buñ ci déggoo ba déggoo ci ak jàngalekat yi xel dal jàngalekat yi xam ne léegi wax dëgg yàlla seen problème de statut yi seen problème de carrière yi seen problème de formation yi yëpp réglé nañ ko ba mu féete boor léegi nag bu ko defee léegi nag bu ñu amee euh, une réforme boo xam ni dina dem sur les contenus dañuy mën a am njàng mu matale ça va permettre ñu am dal parce que réew yu bëri yi tax ñu raw ñu boo jëlee tous les classements sérieux comme ay classement Singapour ak yooyu c'est parce que réew yi fa raw ñoom seen école amul grève léegi nag réew moo xam ne tout le temps ñu ngi ci biicoo mbaaloo jàngalekat di jàppante ak ministre de l' éducation ministre de l' di jàppante ak euh, élèves yi et cetera système bu mel noonu du dem kon bu ñu bëggee am njàng mu baax effectivement comme ni nga ko waxee fokk ñu fexe ba waxtu yi duñ ci duñ ci ñàkk benn surtout que réew lañ boo xam dañu bëri ay fête loolu c' est un problème maintenant niveau jàngalekat yi ngeen di wax. Mhm. kooku suñ ko tegee ci yoon xam nga sànq OS yi ma leen fi won ñuy jël di ko jël di def recrutement yaa ma neex. su amee moom moo ci responsable su fekkente ni ki la ministre bi. ministre bi moo dem jël ay ñu ko neex dem dugal leen ci njàng mi alors que loolu dañ koy tere dañ ni kuy nekk jàngalekat dangay ngay jaar par voie de concours ministre bi dem def lu ko neex lool lu ci jàngalekat yi mën mi jàngalekat yi li ñu wax suñ ko defee mooy kenn du dugg ci njàng mi te jaaroo par voie de concours ñun jàpp nañ ne jàngalekat yi kenn du am lu mu leen taqal mais nag encore une fois du jàngalekat yi ñoom ñooy euh, ñoom ñooy recruter seen bopp ministère mooy recruter bopp mooy recruter jàngalekat yi te dafa ay normes yu ko tegal moom mooy salfaañe normes yi mais ñun mooy incha allah le président Bassirou Diomaye fay comme waxuma la ci njàng mi kese mais même dans les autres secteurs daf ne day def appel à candidature non hmm. seulement jàngalekat yi kenn dootu def ay quota sécuritaire xam nga luy quota sécuritaire mooy ministre bu ne DG bu ne ñëw indi sa jarbaat ak sa jegeñaale wala ku lay politiqueal ni jël leen ko loolu dafay jeex le président Bassirou Diomaye fay maa ngi ko yor devant tous les Sénégalais lool du ko def léegi nag secteur stratégique yi yi nga xam ne actuellement xam nañ ne dafa am njariñ pour suñu réew dootuñu ko dootuñu fa jël directeur général bi ci yaa ma neex dañuy teg ay critères yu leer xool compétence yi xool ñi xarañ te sénégalais ñu xool ni ñii mën nañ ko ci diplôme kese non bu ñuy wax euh, xarañ hmm. ñu nekkuñu dans le complexe de diplômes hmm. xam nga le système français tu as bien fait de poser le problème hmm. parce que Sénégal tamit xam luy suñu défaut ñun nous ne sommes pas comme les anglo ñu ñun li ñu gëm mooy ku aay mooy ku bari diplôme. mbir mi du ay bari diplôme. ñun dañuy bëgg yow boo amee diplôme ba pare léegi pas forcément aussi que ku amul expérience kenn du ko jël. il faut un bon mix. oui il faut un bon mix parce que suñu nee tamit ku am jaar-jaar rek wane ak xarañteem feneen la jël kon xale yi tamit dem jàngi ba yore seen diplôme bu ñëwee kenn leen jël. ñun li ñu gëm mooy il faut ñu mixer lépp doser lépp mais am waajal. am waajal mooy xale bi nga xam ne dafa xarañ. bu ñëwee dañoo war a organiser notre système de telle sorte que kooku bu ñëwee daañ ko mën a jox ay place yu mën a demee ci entreprise yi di liggéey ba nga xam ni moom dina wane euh, dina wane xarañteem nekk également dans les directions bu dee foofu la opte di liggéey pour ñu am xarañteem bu ko defee loolu dina ko permettre mu waajal moom tey bu ñu doon xëccoo mu mën a ñëw valoir ses compétences et puis xam liggéey bi aussi donc ñun li ñu gëm mooy daal euh, bu ñu bëggee dëkk bi dem mooy dañuy bàyyi par parloo bi ak yaama neex. ñu teg lépp ci yoon. képp ku ñu dénk dara Sénégal yëpp d'accord ni mën nga ko. d'accord ba ñu bañ a teg mbir mi rek ci kee moo ëpp ala ëppale ay at. Mhm. parce que réew tamit doone rek parce que Sénégal tamit dañoo xaw am ñaari complexe. complexe ku yore diplôme yu bari. ak complexe ku am ay at yu bari. Mhm. ñaar yooyu yëpp ça pose problème ay xale yu ndaw a ngi fi. jafe-jafe yu ñu ko yóbbee. loolu moo ñu ko yóbbee dañoo jàpp ne yow xale nga. Mhm. léegi kee moo la ëppale at. kon nam nga ko jox parce que yow xale nga. Mhm. parce que l' expérience n' a rien à voir avec l' nit mun na nekk at am ay at yu ndaw. mais janjonte ci formation rek ci type de formation bi mu def mu jonjoon ay situation yu bëri yu ko jox expérience yoo xam da koy acquérir dès le bas âge am ñoo xam nag dañuy mage lool te pourtant am ay diplômes yu bëri lool te ñu benn expérience donc ñun daal on va dire li am solo mooy une commission boo xam si lu leer lay def. moom mooy tànn dans les secteurs d' accord bàyyi maam Khady maam Khady dama koy bàyyi mu poser quelques questions ndax dama koo fàtte woon tey ci débat bi. te <laughs> man damaa yaru. waaw da ngaa yaru macha allah man tey sax man yaru man tey sax damaa cool daam am na beneen boo xam ne nii répondre ci te doon na loo xam ne nii def na actualité. Mm. mooy euh, prolifération wu école privée yi et tout ça euh, ba tax sax yenn saa yi day am ay jafe ndax da nga gis benn élève que muy enseignement supérieur formation ci benn école ba pare bu waree def concours wala feneen au euh, niveau international ñu ne ko sa kii reconnaître waaw valable et tout ça donc muy mel ni ne dañuy échappe contrôle ci contrôle état loolu bëgg naa xam ndax am na ay jéego yi ngeen ci teg euh, beneen bi aussi tam mooy ci wàllu jàngale bi xam nga dañuy wax ay valeur presque fii ku fi toog euh, di nga prôner valeur et tout te dañu naan valeur ci éducation lañ ko war a jaarale ndax ah. prévoir ngeen renforcer lu aju ci wàllu éducation civique pour mën a tàggat sénégalais bi nga xam ne nii dina def faire face aux défis yi nga xam ne moo ñuy xaar. macha allah euh, laaj yi am na solo. surtout laaj bu mujj bi. boobu moom wax dëgg yàlla mooy laaj bi ëpp solo parce que nag gis nga xam-xam bu àndul ak ay valeur àndul ak éthique amul njëriñ. ñun moo tax sunu école bi ñu bëgg koo réformer école bi nu koy réformer sànq maa wax ci réforme bi que dafa am ay réforme stratégique yoo xam ne ngi ci euh, programme président Bassirou Diomaye fay benn bi mooy l' apprentissage à partir des langues nationales parce que dañ ne tout langue véhicule une culture mm-hmm. maanaam langue boo kàllaama boo gis ñu koy lakk dafa am aada euh, boo xam ne day ànd ak moom mm-hmm. maanaam yow li nga li nga doon ci sa kallaama ñi ngi la ko ciy wax si bien que boo yar sa doom sax ci biir wax ji rek yaa ngi koy yaraale mm-hmm. donc kallaama dafa am aada bu muy joxe kon nit ki nga xam ne mi ngi jàkk làkk làkku jàmbur ci école bi day nekk nit koo xam ne si këf ko day yomb te ñun comme dañu teg suñu programme sur euh, la posture souverainiste mooy sama boppam la gënal dug bañ naa la mhm. nit ki bala moo xam boppam day euh, da nga koy jàngal moom mooy kan te moom mooy kan mooy nga jàngal ko li mu doon kon dañu bëgg kàllaama réew mi mhm. xale yi di ko dale baax parce que réew yi développé ci àdduna amul benn réew ci àdduna bu développé boo si daa daa développé ci kàllaama jàmbur amul réew yu ñu lim boo ci jël dégg naa un jour benn journaliste boo xam si xëy na xamul ñun li ñuy wax noonu sur l'introduction ou euh, euh, la la la l'introduction des langues nationales dans notre système d'enseignement mu jàpp ne loolu c'est un retard il n'a rien compris langue bi du xam-xam bi xale bi soo ko nee benn mu ne waa benn ngi nii nga ne ko tegaalaata beneen beneen mu ne euh, nga ne ko loo am danaa la ñaar parce que mi ngi koy def seen kër mm-hmm. mais quelle est la différence ak <coughs> hmm? différence xam-xam bi moo ci am solo xale bi xam ne ah ok kon boo jëlee benn teg beneen <laughs> teg beneen da ngay am ñaar waaw léegi loolu nga wax ko ci anglais ne ko one and one are two jeex na kaw anglais lañ ko un plus un égale deux waa léegi lu tax ñu war am complexe ba loolu doo ko wax ci wolof ki ko mën ki ko mën ci polaar wax ko ci polaar <laughs> ki ko mën ci joolaa ñu wax ko joolaa donc ñun complexe yooyu nekkul ci donc ba Bassirou Diomaye fay programme bi mu bëgg a teg dafa bëgg ñu introduire les langues nationales <coughs> excusez-moi donc beneen bi. y en a beaucoup en tontoo goo ko daam. tontu ko ñu avancé suñu waxtu bee ngi jeex de te am nañu CFA baa ngi fi. waxtu waxtu bi di <coughs> bi la tëjee. mais CFA parce que bataille de Kaffrine bi moom la ñëpp a yóbbante fi mu nekk nii mais franc CFA baa ngi fi ayoo ba mi ngi toog di xaar sama goro mhm. ah. ci question yu bëri maam Khady nee na tontoo goo ci question bi ñuy wax nii c'est important pour njàng mi pourquoi parce que euh, xam nga ñun duñ ay complexé dafa am ñoo xam ne dañoo gëm ne école bi ni mu mel nii baax na ñun gëmuñu loolu valeur yi ngay wax yemul rek ci éducation civique bi xam nga éducation civique nga mooy ñu xam ne ñuy taxawee pour suñu réew xam nu ñuy ñoŋale xale bi xam ni wërta saw ci mbedd xale bi xam ni euh, drapeau yi dañ koo respecter les institutions dañu war respecter civisme yooyu yëpp que dafa war a am euh, taxawaay boo xam si taxawaay citoyen la nekk patriote ñu ñu ñu mooñaale ko mu gëm réewam les valeur patriotiques mu màggaale ko loolu lépp am na solo mais dafa dafa am lu am solo loo am dafa amul suñu njàng mi mooy nit mënoo ko teqale ak diineem nit mënoo ko teqale ak diineem bi ñu toogee lël 2014 ñi seq njàng mi yëpp toog jàngalekat yi toog sëriñ daara yi toog élèves yi toog seeni waajur toog fii lañ ko defee dans un hôtel de la place <coughs> pendant deux ans ñuy waxtaan waxtaan a njàng mi mais bi ñu waxtaanee pare dañ ne lañ dugal diine ci njàng mi parce que ñoo moom suñu réew te réew yu bëri def nañ ko waa léegi dugal diine ci njàng mi lan mooy intérêt bi mooy réew da nga am ay objectif lan lañ bëgg dañoo bëgg n'est-ce pas corruption bi ñoo wax sànq wàññeeku mm-hmm. nit ki diine jiitu ci moom bu bëggee jël ab contrat boo xam ne dañ ne ko kaañ jox la ci suuf day xalaat ëllëg bés pénc xamul tax parce que dañ ko koo jàngal mm-hmm. ne ko bés pénc xale boobu nekk ci école bi dañ koy wax diineem ne ko loo def fii ëllëg danga nga koy rendre compte pourtant bu ragalee rek du signé contrat bu jaarul yoon buñ ko bëggee ger ne ko kaay signé ni tali bii vingt milliards lañ ci def léegi ñun daan la jox cinq milliards du ko signé xam nga tax du ko signé day xalaat bés penc waa lool war ñu ko dugal sunum su ci sunum njàng ba xale bi xam ko alxuraan gi nga xam moom la ki nekk musulman gëm ki nekk chrétien gëm catéchèse pourquoi du leen dugal seen dugalal loolu seenum njàng te loolu jeexital bi ci am moo day waar gis nga est xam nga ne tey jii réforme ñun bi ñuy proposé ñun notre syndicat a fait la proposition que nañu dugal euh, par exemple la réforme de de l' éducation religieuse bi nga moo nekkoon ci assise ñu ñu gaaw dugal ko ba ñun ñu proposé un programme boobu suñ ko defee xale bi su mokkalee alxuraan déglu li ma la te am na école yu koy def fii Dakar. Mm-hmm. ak ak région yi am na école yu ko commencé xale bi day ñëw ñu jàngal ko alxuraan ba mu wàcc en trois ans. gis nga xale bi su defee trois ans maximum trois ans et demi ci alxuraan à l'âge de cinq ans et demi six ans selon xale yi parce que am xale yoo xam cinq ans et demi dañuy wax mu leer nañ mu set wecc wax mhm. ñu mën a wax normal am xale yoo sax am xale yoo xam maximum ans dañuy mën a wax léegi bu ñu leen dalalee xale bi su defee trois ans trois ans et demi day day gis nga bu wàccee alxuraan moom xale boobu gis nga boo ko yóbboo CI yi soxlawul d'abord la en enfance soxlawu ko mais gis nga bu demee CI CI CP benn année la koy def CM1 CM2 benn année. CM1 CM2 benn année il fait trois ans à l'école élémentaire. gis nga xale boobu su demee au moyen ñu renforcer ko muy rappeler wu toujours de son euh, li mu jàngoon day réduire temps bi ñuy def ci moyen bi. au mu def quatre ans day def trois ans maximum s'il est très brillant il peut faire deux ans. xale boobu tamit buy dem euh, au lycée il peut faire deux ans il a son bac xale boobu non seulement dañuy gagner dañuy intelligent macha allah ba nopp dañu am ñu yar leen ja jàngal leen seen diine jàngal leen euh, jaar-jaar yoon sa alayhi pour ñi nga xam ñoom laa ci mën a wax ci ñoom ñeneen beneen diine bi également ñu defal leen loolu mais euh, alxuraan bi day gaawal seen jàng te école yi ko am yëpp yi parents yu bëri léegi bàyyi nañ seen affaire soxo soxo yooyu jël sa doom ñu koy woyloo ci ay jardin d'enfants léegi école yi nii dem mooy école yoo xam damay bañ a def publicité mais mun naa leen jox ay noowu école yoo xam parents yi nand yëpp ñu ngi fa yóbbu seen doom xale bi day am diine mm. wàcc alxuraan te suy def bac moo xale bi defuloon cursus boobu def l'école de Jules Ferry tout court. d'accord école ñoom ñaar ñoo yem donc réforme boobu. mais xoolal li ñu ciy gagné. day régler les questions civiques yi ngay wax. day régler les questions de citoyenneté day tax ñu am askan wu ñoŋ. day tax ñu am ay nit ñu baax. ñoo xam dañuy gëm seen diine ragal yàlla. te réew boo ko bëggee defar da nga koy da koy lal ci ragal yàlla. Mm-hmm. parce que lu fi nit def fii ci àdduna bi lu doon ragal yàlla mooy perte na donc ñun dañu gëm ne réforme yooyu mais war nañ ko def ci système d'enseignement bi loolu nag li ñu gëm mooy le président Bassirou Diomaye na ko def avec le bilinguisme parce que ñu bëgg également anglais bi am doole pourquoi anglais bi dafa doole parce que dans le monde actuellement ah, ah. il eu des exemples qu'on a dans nos dans pays comme le Rwanda aujourd'hui dans le monde le bilinguisme constitue également euh, un levier par lequel tu vas développer ton système d'enseignement arrimé nag ak yi nga xam ne moom mooy xarala yi mooy ñu dooleel numérique dans notre système d'enseignement mmh. donc ñu basculer vers e et la technologie. donc yooyu mooy réforme yi nga xam ni. le président Bassirou Diomaye Faye. pare na pour def ko. tout mais est déjà euh, pensé. vous vous donnez vous de solution yooyu par rapport ak l'éducation mu génn ñu jàll ci Ayoba vous vous donnez combien de temps. non ñun xam nga. dañu pour qu'il y ait au moins des esquisses de solution. <laughs> non des esquisses dès, dès les deux premières années. dañu commencé teg en place tout le dispositif xam nga jàng tamit du euh, comme ni ma waxee sénégalais benn marchand ambulant ne voilà léegi Bassirou Diomaye Faye ñëw na mook Sonko benn la parce que yéen a wax. Euh, euh, Sonko mooy Diomaye léegi kon ñun. bu ngeen nekkee ci nguur gi rek léegi un mois après hé ñun ñëpp dañu am suñuy boutique ma ne ko déet mbir mi nag doxee noonu mbir mi tooba gi doo ko juy tey mu sax tey meññ tey nga góob tey sénégalais yi tamit ñun dañ leen di wax dëgg bu ñu leen révéloo li nu bëgg a teg réew lañ bëgg a defar réew boo koy def lépp looy teg da nga koy planifier lu ci nekk nga wutal ko yoon pour am ay résultat dans le court moyen et long terme. am na ci yoo xam ne dans le court terme daan leen woon fi ñu jëm ngeen gis léegi changement yi parce que c'est des réformes institutionnelles. li mu laaj mooy dem fi dem fee dem voter ay lois euh, changer li changer lee et cetera loolu incha allah. mais voter ces lois là est-ce que ce sera chose aisée. cette assemblée nationale là ne vous est pas favorable de.